wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyana muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa taabi'i sunnatihi ila yawmi ddin bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di dellusiwaat ak yéen ci kàttanu suñu boroom tabaraka wa taala di wéy rek ci waxtaan yi nga xam ne baaxoon nañu di ko def ak yéen tey nag waxtaan wi ñi ngi ko jëmale ci li ñuy tuddee ashirk te mooy li nga xam ne mooy safaanu tawxid pas-pasu bi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala digal jaam yi ñu war koo am ndax mooy li nga xam ne moo leen di texeel fii ci àdduna di leen texeel ci alaxira pas-pas boobu nag ab safaanam mooy li ñuy tuddee ashirk mooy bokkaale tey ci lañu bëgg a ubbi waxtaan wi ndax itam lenn lu nekk niñ koy faral di waxee ci ab safaanam ci la ay tegtalam di gën a leere wa bi diddiha tatabayanu al asyaau lenn lu nekk ab safaanam soo ko xamee dana la dolli ak xam ca loola gannaaw nag pas-pasu tawxid moo war a doon sunu pas-pas dana jaadu ñu xam la nga xam ne moo nekk ca gannaawam ngir ñu bana bi ca loola ni ko Omar ibnul Xataab waxe woon ne innama tunqadu xoral islaami orwatan orwa ida nasha fi lislaami man laa yacrifu aljaahiliya Omar bu ñu demee ba am ñoo xam ne ci lislaam ci lañu ñu sosoo te xamuñu luy ak ceddo maanaam lay bitti bi lislaam xamuñu ko nee na danañu nekk di dagg buumi lislaam buum par buum te duñ ko xam ndax dañu dul xam safaan ba saxaaba bu tedd bu ñuy wax xusayfatu bnul yamaan nee na nit ñi dañ daan laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu baax man ma di ko laaj achar safaanu mbaax di ko nit ñi ne ah waaw yow loo jublu ci laaj gi nga daan laaj achar muy safaanu mbaax mu ne maqaafata an aqaa fii dama ko daan laaj ngir ragal caa tàbbi ngir su ma ko xamee xam la ca nekk ma mën ko wattandiku ba duma ca tàbbi te suñu borom tabaraka wa ni mu ñu digale tawxid leeral nu la mu nuy jural suñu ko amee ci dund boo xam ne bu jub lay doon bu dal lay doon fii ci àdduna ak ak pexe bu ñu delloo ci suñu borom noonu lañu ñu leerale itam nag safaan bi terenu ko wax nu itam li nga xam ne moom lay jural nit fii àdduna ak la nga xam ne moom la koy jural itam ci àllaaxira lépp suñu boroom leeral nañ ko ci biir alquranul karim shirk nag dañuy wax ne moom mooy daawatu gayrillah fi ma laa yaqdiru alayhi illa allahu taala moom mooy ngay ñaan wala di woo keneen ku yàlla ci mbir moo xam ne yàlla rekk moo am kattan ca loola lu mel ne ki wërsëgal lu mel ne ki wéral su fekkente ne feebar am na lu mel ne ki fan wu gudd lu mel ne ki ku la jéggal say bakkaar yowmal xiyaam nga mucc lu mel ne kii ku la teg ci aw yoon woo xam ne mooy yoon wu jub hidaaya boo xam ne hidaayatu tawfiq la amma hidaayatu dalaala muy tegtal la yoon wi moom doomu aadama mën na la ko defal waaye nag tënk la ci kaw yoon wi ba dootoo ko mën a wàcc kooku suñu borom tabaraka wa taala rek mooy ki nga xam ne moom moo ko man naka noonu kon mooy daal di woo keneen wala di yaakaar keneen ci mbir moo xam ne suñu borom tabaraka wa taala rek moo am kattan ci def loola donte da ngaa bëgg a wane ne kooka ngay def mooy ca diggante ba donte yàlla nga ci jublu kii da nga koy jaarale ci diggante bi te fekk yàlla digalu la loola loola du tee mbir mu tudd sirk ndax daanaka foo fekk ñi nga xam ne dañuy bokkaale am leneen lu ñuy wut ci ñoo xam ne duñu yàlla yoruñu loola soo leen waxee dañ naan xam nañ ne sax kii du yàlla yorul li ñuy wut ci moom waaye nag moonu mën a jot li ci yàlla mi nga xam ne ci moom lañ koy wut suñ borom di ko nettali ne soo leen waxee dañ naan maa na'buduhum illa li yuqarribuuna ila allahi sulfa yi nuy jaamukat jaamu wuñu leen ci ne ñoom dañ noo mën a fay wala dañ noo mën a musal waaye dañ leen di jaamu ci ne ñoom ñoonu mën a jegeel yàlla suñu boroom tabaraka wa taala te nag suñu borom tabaraka wa taala moom diglewul jaamu gi nga koy jaamu ngay am kenn koo xam ne danga ko ci bokkaaleel wala koo xam ne da nga koy jaarale ci moom li nga mën a jariñoo ci nit kay mooy ko la tegtal yoon wu jub bi jàngal la li nga xamul woon nekk royukaay ci li nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala digle nga di ko ci roy am maa li ngay def ci jaamu yàlla ak li ngay yaakaar ak li ngay bëgg ci ndimbal loolu lépp moom suñu borom tabaraka wa nga ko war a jëmale shirk boobu nag boroom xam-xam yi dañ di ko séddale ñaar li ñuy tuddee as shirkul akbar ak lu ñuy tuddee as shirkul asgar bokkaale bu mag ak bokkaale bu ndaw bokkaale bu ndaw boobu moom mooy njistal noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firé woon nee na woon na ngeen wattandiku njistal bu baax a baax a baax ndax ndaxte njistalkat moom mooy bokkaale bu ndaw gi moom xëy na sax mën naa bañ a génn nit ki ci biir diina ji waaye nag dafa yàq ay jëfam te mooy ki nga xam ne li muy def defu ko ngir yàlla sellalul waaye daf koy def ngir doomu aadama yi gis ko wala doom aadama yi dégg ko wala doomu aadama yi naw ko kooke loola bu boobaa dana yàq jëfam amma bi nga xam ne nag moom mooy bu mag bi te moom dafay génn nit ki ci diine moom lu yaatu la lu bari ay melokaan la incha allahu danañ ci egsi ci ay misaal ci weneen waxtaan waaye rek dañuy dellu ci alquranul karim gis suñu borom tabaraka wa taala li mu nu wax ci wàllu bokkaale googu ak tere gi mu nu ko tere danañ gis ci suratu muy wax naan waabudullaha wala tusriku bihi shay'a jaamu leen seen boroom te mooy wéetal leen ko ci jaamu gi mu ne wala tusriko bihi shay'a bu leen ko bokkaale ak dara ci jaamu gi ngeen koy jaamu bu leen ko bokkaale ci jaamu yu baatinu yi ngeen di def yi ne ci seen biir xol mooy pas-pas yi waaye bu leen ko bokkaale itam ci jaamu yu feeñ yi nga xam ne cër yi ñoo koy def ndax jaamu yàlla dafay ñaar am na jaamu yoo xam ne xol bi moom moo koy def te loolu mooy lu mel ne bëgg gi ngay bëgg suñu borom tabaraka wa taala loolu suñu borom moo ko digle da ko war a bëgg waaye mbëggeel googu nag dafa war a fare kaw geneen mbëggeel gum mën a doon même ni nga bëggee sa bopp mbëggeel googu daf koo war a fare kaw su fekkente ne am na loo xam ne ni nga bëggee yàlla nga bëggee loola tolloole kook moom loolu bokkaale lay doon su fekkente ne nag na nga bëggee loola sax nag moom moo gën a fare kaw na nga bëggee yàlla kooku nag moom moom musiba la moom la suñu borom wa min annaasi man yattaxisu min duni illahi andaadan yuxibunahum ka xubbillah walladina aamanu ashaddu xubban lillah mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy wut yeneen di ko dendale ak yàlla bëgg yooya ni ñu bëggee yàlla maanaam fa ñu teg yooya ak fa ñu teg yàlla place bi benn la wala sax yooya lañuy jiital suñu boroom ne ñi nga xam ne gëm nañ yàlla day ñoom seen bëggeel moo gën a tar mbëggeel guñ mën a bëgg leneen lu mën a doon boo gisee ibrahim alayhi salaam suñu boroom def ko muy njiitul ñi nga xam ne ñépp dañoo nekk ci tawxid mooy mbëggeel googu mu bëgg suñu boroom tabaraka wa dafa dem ba gënal ko boppam gënal ko sax doomam ndax gis ngeen ni doon nañ ko sànni ci aw safara woo xam ne ña ko fa doon sànni lañ ko bëggoon a defloo mooy mu bokkaale ak suñu boroom tabaraka wa waaye wéetal suñu borom tabaraka wa taala jaral ko ñàkk bakkanam suñu borom daal di koy musal ci itam ba suñu borom tabaraka wa ko rendiloo doomam su fekkonte ne mbëggeel gi mu bëgg suñu borom tabaraka wa taala gënu kaw mbëggeel gi mu bëgg doomam kon ndigal loolee du ko topp waaye dafa daal di topp ndigal suñu borom tabaraka wa taala suñu di koy gërëm ca loola daal di koy yëkkati ci daraja yu kawe moom la naan inna haada lahuwa albalaau almubin natt boobu mu natt ibrahima nee na natt bu rëy rëy rëy la waaye ibrahima jàll na ko na mu ko wax ci suratul baqara wa iz ibtalaa ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama ibrahima ba ko suñu boroom tabaraka wa taala nattoo ci mbir yooyu dafa matal yépp taxaw ca taxaw yem ca war a taxaw suñu boroom nag ne ko kon def naa la ngay njiital nit ñi ci wàllu tawxid moo tax mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kazalika awxaynaa ilayka an ittabic millata ibrahima xanifa wa ma kaana min al mushrikin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ne ko wax yu naa la ne la na nga topp yoon wi ibrahima jaaroon yoon woowu nga xam ne yoon wu sori bokkaale la ndax ibrahima kat moom mësta bokk ci ñiy bokkaale mësu leen a jege fenn suñu borom dellu waxaat ci suratul an'am ne qul taalaw atlu ma xarama rabbukum alaykum alla tusriku bihi shay'a suratul an'am fukki dénkaane yooyu nga xam ne suñu boroom daf ko dénkaane te yonante bu fi mës a ñëw bu nekk jaaral nañ ko saw làmmiñ nga leeral ko saw xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom wax ak moom ci alquran ne ko waxal nit ñi ne leen ñëw leen ma jàngal leen li yàlla araamal ci yéen loole ba mu koy lim la ca jiitu mooy allah tusriku bihi shay'a bu leen ko bokkaale ak dara moom suñu borom tabaraka wa taala suñu borom dellu wax ci suratul isra wa qada rabbuka alla taabudu illa iya suñu borom day li mu atte li mu dogal mooy ngeen bañ jaamu kenn kudul moom jaamu gi bu leen ko ci boole ak kenn bu leen ci boole ak yonent bu leen ci boole ak malaaka bu leen ci boole wàlli bu leen ci boole ab bàmmeel wala ak garab wala xërëm wala lum mën a doon waaye suñu borom tabaraka wa taala rek mooy ki nga xam ne moom mooy yeyoo jaamu te moom rek itam nag lañ war a jaamu mu dal waxaat ne qul innama umirtu an abuda allah wala usrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ci suratu ar-ra'd mu ne yonent bi waxal nit ñi ne leen man day dañ ma digal ma jaamu sama boroom subhanahu wa taala te duma ko bokkaale nag ak dara man dey ci moom laay woote jëme te itam ci moom laay dellu moom suñu boroom tabaraka wa taala kon liñ ma digal nag mooy ma jaamu ko te bañ koo bokkaale ak dara suñu boroom dellu wax ba tey di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jinn naan ko qul innama ad'u rabbi wala usriku bihi ahada ñi nga xam ne dañuy bokkaale ak di gëm leneen lu dul yàlla suñu boroom tabaraka wa taala na nga leen wax ne day man su may woo su may ñaan su may sàkku ndimbal ci sama boroom laa koy sàkku waaye sama boroom day duma ko bokkaale ak kenn suñ borom dellu wax ne wa is bawwa'naa li ibrahima makaanal bayt an laa tusrik bi shay'a mu ne ibrahima day teg naa ko ci place bu kawe te mooy ca kaaba ga ibrahima mooy ki nga xam ne moom moo fa njëkk a mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a dundal suñu borom sédde ko barab bu tedd boobee waaye nag ne ko ci sartu allah tusrik bi shay'a bul ma fi bokkaale ak dara nañ ma fi jaamu man képp wa tahir baytiya li taifin sama néeg bi na ko laabal ci bokkaale laabal ko ci lépp loo xam ne lu juuyoog sama ndigal la mu ñeel ñi nga xam ne dañ koy wër di ko jaamu ñooñu rek nañ fay def li nga xam ne moom laa santaane suñu borom dellu wax ak doomu aadama gannaaw bu mu ko digalee topp ay way juram wax ci suratu al ankabut ne wa na al insaana bi walidayhi xusna doomu aadama benn bu nekk dénk naa ko ci ay way juram lu rafet waaye nag mu xam le ne way jur lu mu màgg màgg ak lu mu baax baax ak lu mu am am ci yow cër am na nag foo xam ne fa lay yem muy cëri suñu borom yi tabaraka wa taala buñ ko ca jox dara donte sonn na ci di bu mu tax ñu jox ko moo tax mu teg ci ne wa in jahadaka li tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutixuma mu ne nag way jur yooyu digal naa la nga rafetal jëme ci ñoom waaye nag na yem ci cadre rafetal rek ci lépp loo xam ne la suñu borom tabaraka wa taala digle la waaye nag bu bu ñu bëggee jëfandikoo nag cër bi ñu am ci yow ci ne ñoo la jur wala ñoom ñoo doon sonn ci yow wala mbir yu bari ñoo la ci taxaw ba tax ñu jàpp ne lu nekk mën nañ la caa dugal nee na bis bu ñu la bëggee dugal ci nag nga bokkaale ma nag ak leneen loo xam ne xamuloo ko amuloo ca benn xam te nag bokkaale moom lu ñu lay bokkaale yàlla du doon xam bu mën a leer ndax aw lay mënu caa am ndax lañ lay wax ne kii loola la am ba tax ñu war koo jox cër yi ñu jox yàlla loola kenn mënula la caa andil kenn mënu la caa andil lu leer moo tax rek suñu borom di wax ne maa laysa laka bihi ilmun ndax xam-xam moom mënu caa am bu leer ci lañ lay wax ci ne ne kii cër bii am na ko ba tax nga war koo jox ci cër yi suñu borom yi tabaraka wa taala mu ne way jur yooyu nag li ñuy màgg-màgg bis bu ñu la bëggee dugal ci lu mel noonu nee na bu leen ca topp mu dellu ko waxaat ci suratu luqmaan ba mu waxaatee ne wa wasayna al insaana bi walidayhi dénk naa nit day ay way juram na leen di taxawu nay sonn ci ñoom na leen di dimbale waaye wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutixuma mu ne nag ak loo sonn sonn ci ñoom ak loo leen déggal déggal nag bis bu ñu la bëggee dugal ci nga bokkaale ma ci loo xam ne amuloo ci benn xam-xam mbir muñ la bëgg a defloo wala luñ la bëgg a rëyalloo wala luñ la bëgg a jaamuloo loo xam ne amuñu ca benn xam-xam buñ la ca jox bu leer nee na loolee nag boobaa bu leen ca topp kon nga gis ne kon doomu aadama amul lenn loo xam ne war na koo jël di ko boole suñu borom tabaraka wa ndax doomu aadama ki nga xam ne moo ëpp cër ci doomu aadama yi ci moom mooy ay waajuram ndax ay waajuram suñu borom tabaraka moo ko boole ak ñoom keneen ku mbut nag kooka moom moo ko boole ak boppam te waajur yi itam lañu ko defal ak lañu ko ji ca waxtu wam ko soxlaa woon loola keneen ku muy àndal itam kooku defu ko ci moom keneen ka muy àndal ñaare day nag ba am njariñ ba mënal boppam dara mënal keneen kooka doog a ànd ak moom amaa way jur nag ba ngay ànd ak ñoom ci loo xam ne mënaloo sa bopp dara mu amaloo sa bopp sa mënoo ko jariñ waxuma laa di jariñ keneen ñoom ñu doon sonn ci yow ba nga dem ba mën a jariñ sa bopp bay mën a jariñ keneen kooku kon ñu ëpp priorité ci yow ci keneen ku mën a doon waaye teewul nag suñu borom tabaraka wa taala xamal la fi nga war a yem ci ñoom mooy rek topp leen fii maaruuf ci lu jaadu waaye nag bis bu ñu la bëggee dugal ci bokkaale loola bu leen ca fekk suñu boroom dellu wax ba tey ci suratul araf qul innama xarama rabbi alfawaxisa ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baxya bi gayri alxaqi wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun suñu boroom ne yonent bi na nga wax nit ñi ne leen yàlla day araamal na ay ñaawteef yu ca feeñ ak yu ca nëbb maanaam lépp loo xam ne ñaawteef la ak moy la gu feeñ ga ak gu nëbb ga moom ñooyam naka noonu lépp loo xam ne luy jur bàkkaar la lépp loo xam ne ak mbewte la ak ndëngte la goo xam ne tegoo ko ci dëgg nee na suñu borom araamal na yooyu yëpp waaye araamal na itam nag an tusriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana ngeen di bokkaale yàlla loo xam ne wàcc wu ca wenn lay joxu leen ca benn tegtal benn firnde bu leer ngeen di jox yooye ay cër naan barab sàngam ku fa dem da am nangam wala diw ku ko gis am nangam wala diw yàlla may na ko nangam te nee na loolee kat mënoo andi tegtal ba ci alquran mënoo ko andi ci hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maalam yunasil bihi sultaanan suñu borom wàcce wu ca wenn lay nee na loolee yàlla araamal na ko wa an taqulu ala allahi ma la taalamun araamal la itam ngeen di wax ci yàlla loo xam ne amu leen ci benn xam-xam yàlla kenn du ko duural naan yàlla may na diw nangam wala yàlla def na nangam wala ko def nangam da am nangam te loolee suñu borom tabaraka wa taala euh, woo ko ci téere bi jëlewoo ko ci ki nga xam ne moom la yónni woon suñu borom nee na araamal la nit ki di wax loo xam ne amu ci xam-xam rawatina nag di ko duural suñu borom tabaraka wa taala suñu borom tabaraka wa taala dellu wax ba tey ne man kaana yardu liqaa rabbihi fal yaamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada mu ne képp koo xam ne yaakaar nga ne da nga dajeeg sa borom bu ëllëgee daje boobee day na ko waajal ana nooy waajale daje ba bu ëllëgee nag fal yaamal amalan saaliha na nga jëf-jëf joo xam ne jëf ju baax la jëf ju baax nag mooy jëf joo xam ne yoonal nañu ko suñu borom yoonal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko nga roy ko ca na mu ko jàngalee defe ko noona loola mooy tudd al amalu saalih te boo ko defee ba noppi nag bu ko yàqaat ci bokkaale moo tax mu ne wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada te nag jaamu ga muy jaamu boroomam loola bu mu ca bokkaale ak kenn ndax li ngay def kat lu mu tudd tudd al amalu saalih lu mu tudd tudd jëf ju baax waaye nga rax ca bokkaale bokkaale googee mooy daal di yàq la nga xam ne moom nga jëfoon lépp mu ngi mel ne ki bayoon dugubam ba am dugubam ju baree bari ba def ab jaagam dugub ji rafet lool waaye nag mu fab xalu sawara dugalaale ca biir jaag ba loola kat la dugub jay baax baax baax bu ëllëgee bu fa delfee rek doomu keesa la fay fekk ndax bokkaale gam ca bokkaale lu ca bokkut muy xalu safara wa mooy la nga xam ne moo yàq la fa nekkoon lépp naka noonu itam bokkaale noonu lay def ay jëf daf koy yàq daf koy daal di neenal ñoom la suñu borom wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnaahu habaan manfuura ñooñu day damay ñëw ci li nga xam ne moom lañuy ñu jëfoon ci ay jëf su ko defee ma daal li koy def pënd boo xam ne bu tasaaro la ñooñu mooy ñi nga xam ne alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a mooy ñi nga xam ne nee na seen jëf yépp sànku na fii ci dundub adduna bi bi ñu fi daan jóge lépp yàqu na te nee na kat ñi ngi jàpp ne ñoom jëf ju rafet rafet rafet la ñuy def waaye fekk na yàqu na ndax la ko yàq mooy dañ caa dugal bokkaale ak suñu boroom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko Muaz ibn Jabal ba mu ko laajee ne ko dama bëgg nga tegtal ma jëf joo xam ne su ma ko jëfee daf may tàbbal àjjana te daf may soril safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko ah laaj nga day mbir mu jafe mbir mu màgg waaye nag mbir mu jàppandi la ci koo xam ne yàlla dimbali na la ci ba jàpp ndalal la ko waaye lam ko njëkk a tudd ca mbir ya daf ne ko taabudillaha wala tushrik li ngay njëkk a def daal su fekkee bëgg ngaa tàbbi àjjana te sori safara mooy jaamul yàlla te bul ko bokkaale ak dara lam cay teg mu doog ko caa teg ndaxte bokkaale mooy li nga xam ne moom su fekkente ne jógewu fa lu ñëw itam dana daanu kon balaa daraa ñëw ci jëf yoo xam ne yu baax la na doomu aadama bi njëkk a setal pas-pasam ba dara ci bokkaale nekkatu moo tax suñu borom naan wa man yakfur bi taaxuuti wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati l wusqa na ki nga xam ne weddi na lépp loo xam ne taaxuut la te taaxut mooy leneen loo xam ne doomu aadama daf koy gëm di ko teg place suñu borom tabaraka wa taala loolee lu mu mën a tudd ak façon yi lu mu bari bari rek baatub taaxut mooy li nga xam ne moo ko ëmb moo ko làmb moo tax suñu borom ne balaa kenn gëm nag yàlla ngëm goo xam ne gu la ngëm gu sell la goo xam ne dana la mën a may ay tuyaaba bu ëllëgee da ngay weddi lépp loo xam ne taaxut la su ko defee na nga dal di gëm yàlla nee na loo de ku ko def jàpp nga ci buum gi nga xam ne moo dëgër ba tey ci xadis boo xam ne mi ngi ci doon wax ak Muaas ibnu Jabal bam ne ko atadri maa xaqullahi ala al ibad ndax xam nga lan mooy àq yàlla ci kaw jaam ñi mu ne ko allahu wa rasuluhu aalam ah yàllaa ko yonentam day ñoom ñoo xam mu ne ko an yacbuduuhu wala yusriku bihi cheyan xaqullahi ala al ibad an yacbuduuhu wala yusriku bihi cheyan yàlla day jaam ñi moo moom lëseen lépp moo ko moom waaye nag lim ci soxla nee na mooy ñu jaamu ko te buñ ko bokkaale ak dara wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduun nee na doomu aadama yi bindu leen ak jinne lu dul ñu jaamu ko te jaamu ga mooy ñu wetal ko doyewu leen wërsëg maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutimoon nee na doyewu leen wërsëg doyewu leen leneen ndax bu dee jaamu yàlla yi ñuy def yépp ñoom la koy fayaat yàlla julli gi néewul doomu aadama yi nañ ko jullil wala nañ ko wooraw wala nañ ko asaka yooyu yépp moom doyewu ko dara loo ci def lu nekk mu bindal la ca tuyaaba joo xam ne ju réy la boo ñëwee mu fay la ko lim la sant rek nga def ko daal moom nga bañ ko bokkaale ak dara loolu mooy àq ji nga xam ne moom la soxla ci jaam ñi li ci des lépp nag suñ ko jëfee suñu ñëwee mu fay leen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu la wax Muaz ibnu Jabal ne ko mooy nañ ko jaamu te buñ ko bokkaaleeg dara doomu aadama yi suñu defee loolu itam nag àq ji ñu am seen digganteeg seen boroom mooy mu tàbbal leen àjjana te du leen mbugal suñu boroom tabaraka wa taala ba tey dinu tere bokkale naan wala takunu min almusrikin min alladina farraqu diinahum wa kaanu chiaan kullu xisbin bima ladayhim farihun mu ne yéen ñi gëm yàlla bu leen bokk ci ñi nga xam ne dañoo bokkale te bokk na ci melakaan yi ñu bokkaale nag nee na mooy ñi nga xam ne dañoo taqale seen diine nekk ay pàcc yu baree baree bari kenn ku ca nekk kontaan ca fa mu féete ak la mu nekk jàpp ne loolu rek mooy dëgg ndax bokkaale moom fu mu amee rek il faut mbooloo mu taqalikoo foo gis mbooloo mu taqalikoo itam baye boo mën ngaa xam ne kon pas-pasu tawxid yoruñu ko ndax pas-pasu tawxid ku ko yor yaay ba yaay mën a ànd waaye koo xam ne nag pas-pas yi dañoo bokkul kenn ku nekk am lu mu fas moomu mbooloo ñu mën a ànd ndax doom aadama yi la leen di ànd du caa génne ay groupe yoo leen di dajale wala ay mbootaay yoo leen di dajale wala ay association waaye doomu aadama yi la leen di boole mooy seeni xol ànd xol ànd nag dara mënu koo def lu mooy xol yoo xam ne ñoo bokk benn pas-pas ñoo bokk iman boo xam ne bu wér la moo tax suñu boroom ne innamal muminuuna ixwatun ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ngëm yàlla gu wér ñooñu rek rek rek ñoo mën a doon ay bokk ndax leneen lu mën a dajale doomu aadama dafa amul law anfaqta maa fi l ardi jamian maa allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum suñu boroom nee na mbooleem lu nekk ci kaw suuf ku ko dépensé woon ngir bëgg a boole xoli doomu aadama yi nee na doo ko mën a boole waaye yàlla ci boppam moom moo koy boole te nag li mu koy boole nag mooy al imaanu saxiix ngam yàlla goo xam ne gu wér la gu dëppoo ak alquranul karim dëppoo ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mu dellu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko waddoo ila rabbika wala takunanna min al musrikin yow day wooteel jëmee ci sa borom te nag bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy bokkaale gis ngeen kon ak aaya yi ak yeneen yu baree baree bari ci biir alquran da dangay gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf ñu ciy tere bokkaale dinu ko soriloo ngir li nga xam ne moo ci nekk ci ay musiba yu mën a yóbbi doomu aadama fii ci dundam ak bu delloo ci boromam yow bokk na ci yi nga xam ne nag ay musiba la yoo xam ne bokkaale daf koy jur muy awaqib yi nga xam ne dana juddoo ci koo xam ne da ngaa yor pas-pas boobu nga xam ne mooy pas-pas bu baaxul boobu di bokkaale ak suñu borom tabaraka wa taala te muy mbir moo xam ne nag mu jëfee mucc la doomu aadama bi dafa war di góorgóorlu di jàng alquranul karim wala di déglu ñi nga xam ne yàlla baaxe na leen ñu mën ko jàng mën ko leeral di ca kori sa boppam di ca natt pas-pasam di déglu itam xista ya muy nett li ci yonent yi nga xam ne ñoom ñoo doon dund pas-pas boobu ca dundin wa nga xam ne moo gën a mat su ko defee mu ciy roy su ko defee itam lépp loo xam ne wax nañu ne dana yàq pas-pasu doom aadama su ko defee mu sori lool te suñu borom a ngi naan wa maa yuminu aktaruhum billahi illa wahum musrikuun nee nañ di ëpp ci nit ñi danañ wax ne sax gëm nañu yàlla waaye du tee danañ ci boole bokkaale ak yàlla ndax ñu bari ci nit ñi dañuy jàpp ne ñu ne gëm nañu yàlla rek loolu daal nay doy loolu mooy ku gëm yàlla ñu ne diw ku gëm yàlla la yàlla goo xam ne bokkaale ma nga ca biir googee ngëm yàlla daf dul jëriñ boroom dara ndax xam ngeen ne même yéefar yi nga xam ne ñoo jamono wante woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu am na façon gëm yàlla gu ñu gëmoon yàlla muy nangu woon nañ ne yàlla moom mooy bind yàlla moom mooy ki nga xam ne mooy wàcce taw bi yàlla mooy ki nga xam ne moo bind asamaan teg suuf si mbir yooyu yëpp nga xam ne dafa aju ci robot bi aju ci jëfi suñu borom tabaraka wa taala soo leen ko masaa laaj danañu nangoo saxal ne yàlla moo ko doon def mais teewul suñu borom tuddee leen ay musrikuun lan moo ko waral mooy dañoo nanguwul woon suñu borom nag ci seen i jëf ñoom seen jëf yi ñuy jëf ñoom muy ak jaamu dañ cee nanguwul woon a wéetal suñu borom tabaraka wa taala dañuy jàpp ne daal il faut ñu am fu ñu ko jaarale il faut ñu am foo xam ne fa la ñuy def seen jaamu yooyee te kenn digalu leen ko ñu jàpp ne nag foofa lay jaare dem ci suñu boroom tabaraka wa taala bokkaale li nga xam ne moo gën a garaaw ci li muy def mooy ixbaatul amal moom mooy dafay sippi ay jëf daf koy neenal te jëf yooyu nag lu mu rëy rëy rëy rëy du weesa sippiku bu fekkent ne bokkaale tabbi na wala suñu borom jox ñu ci misaal ndax xam ngeen jëf moom ci jëfi doomu aadama ji ci gën rëy mooy jëfi yonent yi yonent yi nga xam ne suñu borom moo leen tànnal boppam euh, jox leen risaalaam ñu yóbbu ko ci doomu aadama yi ñooñee seeni jëf jenn jëf tollul ne moom ci jëfi doomu aadama yi waaye la muy rëy rëy rëy teewul suñu borom ne ña ko jëfoon bis buñ ca tàbbaloon bokkaale lañ jëfoon lépp dinaa ko annulé dinaa ko neenal ñu waxee ci suratul an'am tudd yonent yi ñu bari mu tudd leen foofa tagg leen ba ne ulaika allazina hadahumullahu fa bi hudahu muqtadi ñooñu day la yàlla jubal ba tax ne képp ku bëgg a jubati ba boo nga jaare ci ñoom feneen fooy mën a amee njub moom gu jaarul ci yonent yi mënta am waaye def na nag ba mu noppee mu ne walaw asraku la xabita anhum ma kaanu yaamaluun ñoom yonent yooyu day li seeni jëf di rëy rëy rëy nee na bis bu ñu bokkaale woon la ñu jëfoon lépp dana sippiku la ñu jëfoon lépp dana neen loolu kat da nga ci dégg ne kon yow bul naw sa jëf léeg-léeg nga dégg ñu naan diw moom weesu naa yàqule xanaa kay ñeneen la ñuy wax waaye diw moom yàqule wees na ci moom fekk nag yàqule moom weesul ci kenn li feeg doomu aadama bi euh, faatuwul rek yàqule weesul ci moom kon bokkaale boobu kenn ku nekk danga ko war di muslu danga nga ko war di daw te itam bañ woru bañ a jàpp ne itam yow say jëf weesu na yàqu wala defal yàlla loo xam ne di ko naw ba jàpp ne loolu daal loo mën a defati yàlla itam loola duutu ko gisati ndax defal nga ko loo xam ne moo gën a rëy mu daldi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wala xad uuxiya bi wa ila alladina min qablika la in asrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin bal illaha faabud wa kun bi yow day wax yu naa la ni ma wax yoo woon yonent yi la jiitu woon li ma wax yu mooy lan mooy ne bis boo bokkaalee yow Muhammad ak li ngay màgg màgg sab liggéey li muy rëy rëy li nga jëfoon lépp dana sippiku te da nga bokk ci ñi nga xam ne dañoo perte muy wax joo xam ne ko feddli ci feddli yi njëgg a dëgër ci waxinu arab la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin loolu nag kon nekk ab tegtal nekk am njàng ci ne bokkaale moom Euh, amul jënn jëf joo xam ne dana rëy rëy rëy ba su ca tàbbee rek du ko yàq ndeeg jëfi yonent yi la mën a yàq ndeeg jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la suñu borom di wax ne man na koo yàq loolu kon moo tax doomu aadama bu nekk man koo war ko wattandiku ba tey bokkaale bokk na ci li nga xam ne dana ko jural boroom moom mooy du am xel mu dal fu mu toll ci tiitaange lay nekk suñu boroom mi ngi naan sanulqi fi qulubi alladina kafaru roba bima ashraku billahi ma lam yunazil bihi nee na naa sànni tiitaange ci xol yi ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla mu ne ci lu tax ma di ko di sànni seen biir xol yi ci sababu bokkaale gi ñu bokkaale yàlla loo xam ne wàcce wu ci wenn lay wàcce wu ci wenn firnde ñuy jël leneen di ko boole suñu borom tabaraka wa taala mooy tax itam nag seen xol fu ñu toll dafay tiit foofu fekk bokkaalekat fu mu toll dafay tiit ndax fu ñu ko tëkkoo rek dafay dal yi tiit ndax day jàpp ne kenn ku nekk am na loo man du jàpp mbir yi suñu borom tabaraka wa moo ko yor moom mooy dogal moom mooy euh, teg nit euh, lor moo ko mën a teggi moo mën a jariñ nit su ko defee bu ko yaakaaree ci ñeneen nag su ko defee loola mooy tax muy tiit su ko ñooñu tëkkoo ci ne ko danañ wàcce ci moom lor wala ñu tëkku ko ci ne ko danañ la xañ njariñ su ko defee nag mu dal di tiit lool fu mu toll dafay jàq fu mu toll dafay tiit te suñu borom li mu waxoon mooy qul laa amliku li nafsi nafan wala darran illa ma sha allah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ko waxoon ne waxal nit ñi ne leen man day yoruma sama njariñul bopp lu ma mën a jariñ lu bàyyikoowul ci yàlla wala lor ju ma mën a dàqal sama bopp lu bàyyikoowul ci yàlla lu dul loo xam ne soob na suñu borom tabaraka wa taala ci njariñ mu jëmee ko ci man wala lor joo xam ne moom ma ko dàqal su ko defee nag euh, pas-pas boobu la jullit di yor qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun jullit dafay gëm ne amul dara loo xam ne lu koy jot la lu dul loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko bindoon ci moom mu def suñu borom tabaraka wa taala muy kilifaam su ko defee mbiram yépp mu wakkil ko ci moom kon kooku du am dara loo xam ne lu muy tiit la ba tey bokk na ci bokkaale yi nga xam ne moom lay jural nit mooy ku ko def ku nekk dana ko rëcc bis dana ñëw muy taxaw di rëccu suñu borom mi ngi koy nettali naan wa yaqulu yaa laytani lam usrik bi rabbi ahada ci doon bokkaale bis dina ñëw mu taxaw naan ak a neexoonte day man yàlla suñu borom tabaraka wa taala bokkaale wu ma ko woon ak dara bokk ci bokkaale itam la muy jural ku ko def mooy dafay xañ ku bokkaale tabbi àjjana def ku koy xañ suñu boroom mu ne innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljannata wa mawaahu nnaar wa ma lizalimina min ansar suñu boroom nee képp koo xam ne bokkaale ak yàlla ba faatu dajeeg moom ci bokkaale googu nee na kooku day ajjana dafay xaraam ci moom faww te itam nag fatuwaayam mooy mooy doon safara te itam nag amul kenn koo xam ne ku ko fay mën a dimbali la ba tey mu dellu wax ne bakkaar bu nekk moom mën na koo jéggale waaye bakkaaru bokkaale mooy bi nga xam ne ku ko dajeeg moom tuuboo ko ba dajeeg suñu borom tabaraka wa taala loolu moom nee na du la ko jéggal mu ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika ku bokkaale ak moom ba faatu ci loolu loolu moom duut la jéggal mukk waaye nag leneen lu yées bokkaale boobu day ku ko dajeeg moom itam bu ko soobee mën na laa jéggal bokk na ci musiba yi nga xam ne itam bokkaale dana ko jur mooy képp ku ko def rek seytaane mooy daal di doon sa kilif la suñu borom naan innama sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi musrikuun nee na seytaane daal ñi mu am ci ñoom pouvoir ñi mu am ci ñoom sañ-sañ mën leen a mën leen a jaarale ci fi nga xam ne moom foofu la bëgg mën leen a wàcce ci yoon wu jub bi ba duñ ca jaar nee na mooy ñi nga xam ne ñoo féeteeg moom ba noppi di ko bokkaale di bokkaale seytaane yam leen di wan ak nit ñam koy jaarale ndaxte képp ku lay jommal wala muy wane leneen wala muy woote woo ay cër yoo xam ne day wane ne daf ko am ci yàlla ba tax nga di ko bokkaale kookee seytaane mooy ki nga xam ne moo ànd ak moom bu dee kéemtaan yum lay wan la tegu ko ci ragal yàlla ndax bu dee ko ragal yàlla kooka moom du woote woo ay cër yoo xam ne yu mu am ci yàlla la ndax lu mu mën a am ci yàlla itam boobaa dafay tiit mbugal dafay tiit kattanu suñu borom tabaraka wa taala ba sax du gis la nga xam ne moom la am ndax suñu borom dafa tere kuy taskiye boppam kuy wax ne nii laa mel ak naa laa mel fala tuzakkoo anfusakum la wax huwa a'lamu bi ma man ittaqa kon kay ñemee di bàkku di fëgg dënnam di wax ne nii laa toll ci yàlla wala nii laa mel kookee li muy tekki mooy seytaane moo ànd ak moom kookee li muy tekki mooy seytaane moo koy jay moom la suñu borom tabaraka wa taala di wax naan wa inna shayatina la yooxuuna ila awliyaihim li yujaadilookum wa in ataatumuhum innakum la musrikun nee na seytaane yi dañuy wax yu ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom di leen sol ay xalaat di leen indil ay kéemtaan ñuy jommal nit ñi di wane ay mbir yu doy waar nee na ngir ñu mën a weranteeg yéen di leen wane dañoo ami cër cëree ñu di ko tudde turi yàlla waaye nee na bis bu ngeen leen toppee wa in ataatumuhum ñu leen jommalee wala ñu waar leen ba ngeen topp leen ci la ñuy def kon innakum la musrikuun boobaa kon dal ngeen di tabbi ci bokkaale dal ngeen di bokk ci surga yi nga xam ne seytaane moo leen di yilif suñu boroom tabaraka wa taala dellu ñu wax naan wala tajal maa allahi ilahan axar fa tulqaa fi jahannama maluman madxura mu ne ngelawaay bu leen jël leneen beneen buur di ko woo di ko booleeg suñu borom tabaraka wa taala bu leen am dara lu ngeen di woo di ko jaamu di ko yaakaar di yaakaar ci moom ndimbal di ko booleeg suñu borom tabaraka wa taala ndax nee na loolu kat ku ko def des na la tabbi tabbal ci biir safara jaxanama bu ëllëgee nga nekk koo xam ne ku ñu yedd nga nekk koo xam ne itam ku ñu dàkku nga ku ñu sore lépp loo xam ne yërmande nga nee na loolu la ko yóbbe nit mooy muy woo leneen di ko booleeg suñu borom tabaraka bokk na ci itam bokkaale googu la muy yóbbee nit mooy dana ko yóbbee gàcce gu rëy dana ko yóbbe itam aw ŋàññ woo xam ne ñépp danañ ko ko ŋàññi danañ ko ko xas moom la borom bi naan wala tajal maa allahi ilahan axar fa taquda mazmuman mahzula bul woo leneen di ko booleek suñu borom tabaraka wa taala nee na loolu day boo ko defee bis dana ñëw nga toog nekk koo xam ne ku ñu ŋàññi nga ñëpp lay xas ñëpp lay ŋàññi waaye da nga nekk tam koo xam ne ku gecc nga ku torox ngay doon ku rus ngay doon ndax la la ko yóbbee woon mooy bokkaale gi nga doon bokkaale suñu borom tabaraka wa taala borom bi dellu wax ne wa man yad'u ma'a allahi ilahan axara la burhana lahu bihi fa innama xisaabuhu inda rabbih innahu la yuflihu alkafirun suñu borom nee na képp koo xam ne yaa ngi jël leneen di ko woo di ko booleeg yàlla cër yoo waroon a jox suñu borom tabaraka wa taala ngay am leneen loo koy jox moo xam doomu aadama la moo xam jinne la moo xam garab la moo xam ab bàmmeel la moo xam aw xëram la moo xam lu mu mën a doon nga bëgg koo jox cër boo xam ne jàpp ne mën naa dindi lor wala jàpp ne mën naa indi njariñ wala jàpp ne mën naa la te nee na loola laa la lahu bihi amoo ci benn firnde amoo ci benn preuve bu leer nee na fa innama xisaabuhu inda rabbi kookee day suñu borom tabaraka moo koy réglé boppam te nag laa la yuflihul kaafiruun ñi nga xam ne doon weddi suñu borom tabaraka wa taala ñooñu moom bu ñu mën a texe bu ëllëgee bokk na ci melokaan yi nga xam ne melokaan yi ku bokkaale la foo fekk ku bokkaale ay mbir yooyu mi ngi ci moom mooy foo fekk ku bokkaale ab duurkat lay doon maanaam waxkatu lu amut wax joo xam ne da nga koo sos rek waaye jële woo ko ci benn source boo xam ne bu wér la andi woo ci itam benn preuve boo xam ne buy tegtal na li nga wax am la lu am la bokkaalekat foo ko fekk mbir yu mel noonu mooy doon ay mbiram yam lay wax yépp ak ngëmu yam lay wax ne la barab sàngam ku fa dem am nangam wala diw koo gis am nangam yooyu yooyu yépp ay mbir la yu mu dóor yoo xam ne mënu ca andi wenn lay mooy tax sax du nangu ku ko laaj moo tax borom bi ne wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima nee na képp koo xam ne bokkaale nga yàlla ko boobaa day duur nga duur woo xam ne dañ la jural bakaar boo xam ne bu màgg a màgg a màgg la kon bokkaale kat foo ko fekk duurkat la soskat la waxkat lu amul la moom la borom bi naan waman aslamu mimman iftara alallahi kadiba ana kan moo gën a rëy ak tooñ koo xam ne dafay duural suñu borom tabaraka wa taala foo fekk bokkaalekat itam ku sànku la ku réer la ku sori ak njub la borom bi wax na ko waman yushrik billahi faqad dalla dalalan képp koo xam ne mi ngi bokkaale ak yàlla nee na cànku na cànkute goo xam ne gu sori la ku sori yoonu njub la ku sori gindiku la mbiram tegootul ci ak njub lu muy wax lu nekk ma ngi ko teg ci bànneexu bakkanam ma ngi ko teg ci ay xalaati boppam ma ngi ko teg ci ya nga xam ne seytaane yi ñoo ko koy wan di ko ko naatalal kooku kon ku sànku la ku sori yoonu njub la ku bokkaale itam fokk fekk ku ñàkkuk dal lay doon ku ay mbiram ñàkk a jub lay doon ndaxte li muy tekki mooy nit ku jàppul fenn fu dëgër lay doon suñu borom nee na wa man yusrik billah fa ka annama xarra min alsamaai fa taxtafuhu tayru aw tahwi bihi reyxu fi makanin saxiq nee na képp koo xam ne dafa bokkaale ak yàlla dafa mel na koo xam ne dafa yéegoon ba ci kaw asamaan mu xawee foofa jëm si suuf nga xam ne jàppatul fenn ndax li doon jàpp fenn mooy nam ko waxe woon wa man yakfur bi taaxut wa yumin billah kooku faqad istamsaka bil urwatil wusqa koo xam ne weddina taaxut weddina lépp lu ñuy jaamu te suñu borom tabaraka wa taala ba noppi mu gëm yàlla kooku moo tey ci buum bu dëgër gi kon li muy tekki nag mooy koo xam ne da nga gëm taaxut boobu ba noppi nag wéetaloo suñu borom tabaraka wa taala li muy tekki mooy yow jàppoo fenn moo tax mu ne fakka annama xarra min assamaan dafa mel ne koo xam ne ku rëcc jóge asamaan la mu ne kooku nag ñaari mbir moo koy dal benn tax taxtaquhu tayru benn picc yi danañ ko këf séddoo ko yóbbu mooy waajoo ji nga xam ne dafa bokkaale ak suñu borom tabaraka wa taala foo ko fekk nit ñi nga xam ne dañoo topp seen i bànneex nekk nit ñu ñeme yàlla nit ñoo xam ne ñu jubadi lañu ñooñu ñoo koy dal di séddoo li mu waroon a yaakaar ci yàlla te yaakaaratu ko ci yaakaar ko ci ay nit nit ñi dal di profité ci loolu dal di am ci moom sañ-sañ bu dee lu muy liggéey nit ñi danañ ko jël bu dee dara jaam la dara ja nit ñi la cay fajal seeni soxla bu dee xam-xam la ca disposition nit ñi la koy def duut ca seet la nga xam ne moom la suñu borom tabaraka taal a gërëm ndax li mu waroon a yaakaar ci yàlla lépp ak li mu waroon a ragal ci yàlla léegi ci ay nit la koy yaakaar ci ay nit la koy ragal su ko defee nag day daal di nekk ci disposition nit ñooñu wala mu ne aw tahwi bihi réexu fi makaanin saxiq wala boog kooku nga xam ne dafa bokkaale ak yàlla ngelaw moo koy yulal jële ko ci kaw bat daaneel ko ci kàmb goo xam ne ku xóot la barab boo xam ne bu xóot la te loolu misaal la ci bànnee xam lay topp muy waa jooju nga xam ne dafa bokkaale benn nit ñi jël ko di ko faje seeni soxla wala moom mu topp bànneexu bakkanam ba daanu ci barab bu suufee suufee boo xam ne duutu yelloo ak dundu doomu aadama fuuti complètement teraanga bi waroon na am ci doomu aadama yépp duutu nekkati ci moom nekk nit koo xam ne ma nga topp njaaloo ga ma nga topp dorog ba ma nga topp carte ga ma nga topp daal lépp loo xam ne yelloo wuteeg dundu doomu aadama ba duut am benn valeur dafay fuuti complètement la ko ko yóbbee nag mooy bokkaale gu mu bokkaale ak suñu borom tabaraka wa taala ba amul fenn fu dëgër fu mu jàpp ba bànneexu bakkanam daal di koy jiital bokk na ci melokaani yi nga xam ne itam dañoo bokkaale foo leen fekk dañuy bëgg yàgg ci àdduna bi lool seen mbir yi leen dugal ci bokkaale yépp li ci ëpp mooy bëgg a yàgg ci àdduna bëgg am wërsëg te duñ ko wut ci ni ko suñu borom tabaraka wa taala wute moo tax mu naan wala tajidannahum ahrasa annaasi ala xayatin wa min allasina ashraku yawaddu ahaduhum law yuammaru alfa sanatin wa ma huwa bi musafihihi min al azab mu ne ñi nga xam ne dañoo nekk ay naafeq ak ñi nga xam ne dañoo bokkaale nee na ñooñu foo leen fekk ñooy gën a xeet nit ñi ci ab dund fu ñu fekk rek dañuy bëgg dund lool dund bu yàgg lool bëgg fan bu yàgg lépp lu ñu leen bu ngeen ko takkee wala bu ngeen ko sampee wala bu ngeen ko defee da ngeen ci yàgg loole boobaa danañ ko def ndax ñoom wóoluwu wu ñoo dajeeg suñu borom tabaraka wa moo tax ñuy doon ñoo xam ne dañuy xeet ci dund bi lool bokk na nag ci musiba yi nga xam ne itam dana dal kuy bokkaale mooy la nga xam ne moom la doon bokkaaleel moo xam lu mu yaakaaroon la moo xam nit la moo xam jinn la moo xam lu mu mën a doon loolee bu yowmal xiyaamee day weddi bokkaale googa la suñu boroom naan wa yowmal qiyaamati yakfuruuna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu xabiir nee na lépp loo xam ne jël nga ko fi di ko bokkaaleeg yàlla suñu borom tabaraka wa taala ba tax mu bàyyi tax laa bàyyi yàlla tax jaaroo ci ay santaaneem nee na bu yomal xiyaamee loolee ci boppam moom moo lay bàyyil boppam moom mooy weddi bokkaale ga wane ne moom bokkaale woo ko woon yow kay ci sa bopp rek nga nekkoon suñ borom mi ngi ñu ko nettali walaw tara is yarawna al azaba anna al quwata lillahi jamian wa anna allaha sadidul azab istabara allazina tubiu min allazina tabaau wa raaw al azaba wa taqattaa bihim al asbab wa qaala alladina tabacuu law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadalika yurihim allahu acmalahum xasaratin alayhim wa ma hum bi xaarijina min annaar suñu boroom nee na bis bu ñu demee ba ñi doon bokkaale ak ña ñu doon bokkaaleel dem ba jàkkaarloo ak mbugal ma nee na bu keroogee ña ñu doon bokkaale doon leen topp ñooña ñooy daal denc ña leen doon gëm doon leen bokkaale ak yàlla istabara allasina tubiu min allasina tabao nee na su ko defee ñoom ñëpp ñu jàkkaarloog mbugal mi sabab ya leen boole woon ci àdduna itam yépp daal nay dagg ba jeex su ko defee na gaa yi doon bokkaale naan law an na anna lana karratan nun day buñ amoon possibilité mën a dellu kon day fana tabarra minhum kon dey danañ denc ci yéen ñii nga xam ne yéen lañ doon bokkaale kama tabarra u minna comme ni ngeen daje ci nun suñu borom ne yurihimullahu amalahum xasratin alayhim wa ma hum bi xaarijina min a naar mu ne boobaa dutuñu mën a génn sawara suñu borom dellu nekk waat seen biir ba tey ci suratu saba mu ne wa qaala alladina stud'ifu lilladina stakbaru lawla antum lakunna muminin danga nga gis bu boobaa ñi doon bokkaale jàkkaarloog ñen ñu doon bokkaale ne leen yéen ñii day lu woon ak yéen danañ gëm yàlla waaye ñooñu duñ ko nangu daal leen di tontu qaala alladina stakbaru lilladina studifu anahnu sadatnaakum anil huda ba'da is jaakum bal kuntum mujrimin moo ndax nun noo doxoon seen digganteeg ak njub gannaaw ba leen njub ga dikkalee ba pare li muy teg kay mooy yéen da ngeen a nekkoon ni kàccoor da ngeen nekkoon nit ñu jubadi xam ne topp seen bànneex mooy li nga xam ne moo leen neex wa qaala alladina stud'afoo lilladina stakbaru bal makru llayli wannahaari istaamuruunana an nakfura billahi wa najala lahu andaada su ko defee gaa yooyu nga xam ne ñoo néewoon doole daal di wax ña nga xam ne ñoo rëyoon ci seen kanam doon leen wan ay cër yoo xam ne am nañu ko te fekk ne amuñu ko ba tax ñu di leen bokkaale su ko defee ñu ne leen kay yéen a du doon fexeel guddeeg bëccëg di nu wax ay mbir yoo xam ne nekk na ci yéen ba tax nu bokkaale li nekk yàlla tax nu fay dal ku bokkaale yàqal ko dund àdduna fii du neex ndax lu mu mën a am ci alal ci disposition ñeneen la koy def lu mu mën a am ci daraja ci disposition ñeneen la koy def lu mu mën a am ci xam-xam ci disposition ñeneen la koy def maanaa du nekk gor du gore waaye dafay nekk koo xam ne ay nit ñu baree bari ay sang yu baree baree bari sax lay am ndax bu am benn sang sax mu tane waaye ay patron ay kilifa yu baree baree bari bari lay am ndax képp koo xam ne xas nga bokkaale euh, ka nga bokkaale moom duutu mën a nekk lenn ndax suñu borom tabaraka wa taala dong la doomu aadama mën a féeteel lépp loo xam ne soxla nga ko moom nga man di ko am ci moom waaye foo fekk ko bokkaale bu nekkee moom la yaakaar ci wàllu wërsëg danaan moom la yaakaar ci wàllu mucc kee moom la yaakaar ci wàllu gudd fan kee moom la yaakaar ci wàllu mujj ci nit ñi kenn lenn lu nekk am na koo xam ne kooku lay wax ne moom la ci yaakaar su ko defee nag doomu aadama yooyu ñoo koy di séddoo mu daldi nekk nit koo xam ne dafay am ay kilifa yu bari moom la borom bi misaal naan daraballaahu masalan rajulan fiihi shurakaau mutashaakisuun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani masala mu ne alhamdulillah bal aksaruhum laa yaalamuun suñu borom nee na mi ngi leen di jox misaal ci ki wéetal suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne benn bu rek la am mu yàlla mu di ko jaamu ak ki nga xam ne nag dafa gëm yeneen yoo xam ne dafa wax ne daf koy booleeg yàlla te yàlla joxu ko ca ndigal mu ne waa joo xam ne moom ay yu bari ay njiit ay kilifa yu bari la am yoo xam ne ñoo ko séq te kilifa yu jubóowuñu suraka u mutasakishun ak waa joo xam ne moom benn kilifa rek la am mu ne ndax ñoo ñooñu ñaar hal yastawiyaani masala mu ne ñoo ñu ñaar ndax ñu mën a yem kee nga xam ne ay kilifa yu jubóowut la am bu ko kenee wutal ma ndox kenn ko demal wutal ma mat kenn ko demal ma ca marché kenn ko defal ma nangam te ñoom ñëpp ñoo tolloo ci moom sañ-sañ kenn ku ci bàyyi sa ndigal def ndigalu ka ca def nga koy mbugal mu ne kooku ci jaaxle lay nekk ci coono lay nekk loolu nag mooy misaalum koo xam ne dafa bokkaale foo ko fekk ma ngay fér-féri foo ko fekk ma ngay tiit dañ ma tëkku dañ maa wax ne doo dëgg bàq dañ ma wax ne dañ dàq sa liggéey dañ maa wax ne sa jabar da nga moom kenn ku nekk lenn lu nekk ma ngay tiit ma ngay pat pati lu mu am lu nekk di ko yóbbu ci ñooñu nga xam ne ñoo koy tiital te fekk na nag la muy daw du ko raw mukk du ca mën a mucc li fekk delsiwul suñu borom tabaraka wa taala bi nga xam ne mbir yépp ci loxom la nekk kon mbokk yi buntu boobu buntu bu yaatu la dañu ko doon ubbi rek incha allahu ci yeneen waxtaan yi ñëw ñu waxtaan ci yan mbir mooy sabab doomu aadama di tàbbi ci bokkaale ak itam yan mbir moo gën a jëmmal melokaani bokkaale yooyu ku bokkaale yi muy def jëf yi nga xam ne ku ko def da ngay tàbbi ci bokkaale jëfi bokkaale la mu mat a wattandiku loola incha allahu dinañ ci waxtaan suñ kem kàttan kon nag noo ngi yemale waxtaan yu fii